وجعل للوائس والكبري فرعن جميل نعم نافع أهلا يا الملك وهو الرافع ساق مكاره لمن قبل النهاية مدرتي من يقود منها من لكني الملك والملك والمالك الذي له تملك أجرا كبيرا وثوابا وجزاء والوهب عجل الذي ما عنده لا ينكر وزل لي ومصدر والنبر خدمة خير عالمين أحمد عليه تسليما كريم هداي فرعد القلب ونفسي دير وبمكاره لخير ذهب يسور خير عالمين خلمي عليه تسليما منزي للمصطفى وجد مالي غدا نفا بلا مرر للبنخالا هو السفي وهو سجاع بما ذن والأوجاع محمد صلى الله عليه إلا لوسع من ولاه ما البلاء وما الأمراض def ci man la Sëriñ Saliou defoon ca moom ko bésu 14 février 2016. boobu ma ca Paris ca Arancourt ca këram googee man boobu maa nga jóge Thiès jëm Linguère ci cànq ga ca yoon wa ba may dugg Linguère may jóge ci tali bu bon bi di tali di tali bu yees bi foofee la ma soxna ba toor Saliou ci jotee ne ma ndokkal Serigne Béthio nee na bés ni ki def na ci yow loolee ñu wax ak ceex yaay moom tamoo yow ma naan ko yow da ngay foo rek man damaa sonn damaa ci cant fanaan ci jëm li ak cant mooy ma xaaral ma jox la Serigne Béthio Serigne Béthio ne ma waaw wow dogal wàcc na Serigne Saliou moo ne ma defu ma waxu lu ma def moo ko def lu ma wax moo ko wax bakkan nekk ci àdduna nekk ci lépp Serigne Touba tey jii nag dogal yi wàcc na ci yow mooy bés ni ki tey yaay man damaa yow loolee kat jural ma ak cant ngir man kat wax naa ko fépp yuuxu naa ko fépp man wutuma bis saa kaw ma bis bi may mooma sama bopp feuille bul bii Serigne bi taasal bii Serigne Saliou te jox ko Serigne Bethio ne ko ne sa daal bii nii fonk màggalu Serigne bi nañu fonk gàmm bi nañu fonk xasaayu bi bi ngir kat moo dajeel ba Serigne Saliou Mbacké bi si rajo 1946 47 bés boobee nga xam ne kat bu amul woon ñun nii ñuy woowee cantaakoo yi du ñu am. wala bu ñu amee it leneen la ñuy doon waaye tey bu ñuy woowee cantaakoon yi cantaakoon bi ñoo ko waral moom Serigne Seck jaam Serigne Sall kon ma ne leen bis bii di 14 février dama koy def support muy dëgër laay dëgër ngir waajal lay ji muy di sakaat bi ma woote ci matal sas bañ a xale muy 100 pour waaye sasut nombre de nag yoo sa su matal ko tey jii moom laa woote woo ci mbooleem Daaru Salaam Matlaboul Fawzeyni Nuuru Daara te Touba ak Serigne Touba ni ci biir muy soxna Bator Saliou ak xel kom muy soxna Adja soxna Bator nag moom ma nga ca Paris ndax moom it bés bii tey 14 février ñu ngi koy sante foofee Serigne Béthio mook taalibe ca France moom naa fa yebal ngir kat bés bi moom la sëriñ bi dogal bu ko te moom ma ko jottali ma ne ko nag yow demal ak taalibe yi ngeen waaju ko foofee te matal sa suñu seen avril yi maag soxna Dia Saliou toog fii ak mbooloo mi moom mii tey ah mooy nag borom bis bi invité d'honneur wax dëgg yàlla waaw waaw dinaa ci ñëw damaa bëgg ñu gaawal yëf yi ndax ba set na te am na lu des waaye dinaa ci ñëw day bëgg lool di santaat Sëriñ Béthio lool ci njaboot muy sama ñaari doomu jigéen ñii muy soxna Batoor ak soxna Jaani sama ami yii may bëgg lool mbooleem taalibe yi leen di bëggee lool. maa ngi santati Serigne ci boole gii bu mu boole. maa ngi sant Serigne Béthio ci ngor gii mu ñu ci taalibe ji kat boo ne gore mooy ak a amut taalibe boo ne ak mooy ak gore ndax ngor ak taalibe benn mënu cee dem bàyyi ngor ngor ak taalibe dañoo lëkkaloo sëriñ Béthio dimbali ci ndimbalam bu rëy lii ko sëriñ Saliou defal dimbali ñu lool yërëm ñu lool barki sëriñ Béthio sëriñ Béthio kenn sëriñ Béthio kenn sëriñ Béthio gëm région maa jiitu Serigne Saliou en 2000 boobu sëñ ci Saliou dafa ko boole ko ci njaboot bi maa ngi ko génte jàpp na ko ma ñëw siyaar si ko Serigne Saliou di ma jox ay yëf ma naan ko barke maa la war a jox mu ne ma téye sa yëf man la war jox ma ba jox ma pëcc lu kun maam may njàng ngi fi xam na li may wax musuwaar kun yooyu musuwaar yooyu bu daan joxe muy suuf si muy ñaan bi sëriñ bi jox ma ko boole ca dem ko jox da koo mujjee jox ma bëccël kun bi ma téye ko naan ko sëriñ Béthio gën sëriñ Saliou di sotti ay xéewal barki sëriñ Saliou ma naan ko sëriñ Béthio gën mu naan ma Serigne Béthio gën Serigne Saliou man du ma ko neel Serigne waaye gaañ dama ne kuy faatu mënul lii sëñ Béthio daa xotti baax kooku daa jàng baax kooku ku baax moo baax ñun ñii di ay taw tey la 14 février mooy bés bi gaa ñi woowe bésu mbëggeel di ko fekkee na rek ñun ñu gëm Serigne Touba bëgg Serigne Touba wóoru Serigne Touba yaakaar Serigne Touba tey yëpp la gën jëm sopp Serigne Touba. liggéeyal seen Touba te loolee amul kenn suñu koo xam ne yaa ko defal sa bopp ndëm ko ku ko am seen Touba la ko bàyyi. Sëriñ Touba ñu defal suñu ndëm gii ñuy ay ndaw waroon a sànq waroon a bon waroon a réer sëriñ Béthio gàttal bi ci ndimbalu sëriñ Saliou dimbali ñu ba war ñu jëm ni sëriñ Saliou jëm ni sëriñ Touba jëm ni yàlla mu fekk ñu fa mu ñu fekk foofee mu ñu fekk ci nekk bu ñu fa bàyyi woon kon mu ñaaw sëriñ ba ci dimbali këf ñu ñu ay ndaw man ma ko fu nekk ma doon gone bu bàyyi woon ba ma am 18 ans wala 19 ans dafa ne yegg naa âge la puberté mel nu ma neex war tas àdduna mu këf ko fukki at ak ñaar teg ma loxo Fass gii laa yoroo ñu ngi may dégg ñu ngi fii Fass gii laa yoroo Fass bâtiment diggante HLM Fass Gueule Tapée Colobane waaw Grand Dakar ñaari tali ak fan Médina ak Gueule Tapée kañu kër maam Góor Njaay bii laa yoroon foofee ma yoroon waaye yaru fa te kenn yóbbu la xam nga ne Sëriñ Tuubaa la sëñ Béthio teg ma yoxo yi di ma tette di ma tette ba xëy na ma ciix teg ma ci wetam ñun ñu sant naa ko nii xam ngeen li ma leen wax le 14 février ñu koy wax Saint-Valentin sëñ bi a mbir moo ñëw fekkee bés bi ñëpp waajal mu jaral leen ñuy rouge noir tudde ko bés bu bëggee mu ñëw wane ndekete bëgg ba ñu bëgg jeex ki jar a bëgg kenn képp la mooy sëñ Touba mu dimbale ñu ñuy ay ndaw tey jii ñu waroon dem ci boîte war a taxawaale ci trottoir ku ñu romb ne ma gis la sëñ bi dimbali ñu ba banuñ ñu taxawaale wuñ suñu xol yi ku dul Sëriñ Tuubaa bëgg ñu ku dul Sëriñ Tuubaa moo tali bii buñ ko Saalum la jàng xasayam Sëriñ Tuuba yi wàcc kaamilu tey cent cinquante-neuf kaamil lañ fi wàcc liñ fi wàcc ci limu xasaay kenn xamul ñu toll nag yi ginaar yi jëlal yi xar yi dara manqué ñu fruit beeg boisson beeg beñe bi ndox mi te Sëriñ Tuuba ak la woote tey bésu feet la bésu feet la ci ku gëm Serigne Touba tey ñëpp la waroon ñu sant Serigne Touba suñu taw feex la nag ndax dañ di ay daw di ay borom karaw yu weex borom taxawaalu Serigne Béthio këf ñu ñu toog ci baasam bii moo ku bëgg fecc ku bëgg da ngay fecc fecc bi mu tey kon sunna la Saliou Mbacké tudd te ku ko wéetal safara sew sëñ bi ci làkk gi ne ko yaay man tamay yow sëñ bi di yëngal cant gi di tëgg di fecc di woy ak di ko seere te sëñ Saliou neew ko taxawal man soxnaay ne nii sëñ Béthio defar ma defal ma may élément brut